ñoom it nañ xam ne loolu am nañ ci masuliya nañ fexe ba tëggaat nit ñi loolu ci yoon sareet yeeg oto yi nañ xool fi ñuy jaar léeg-léeg nga romb ci mbedd moo xam ne yow sa jëm bopp da ngay am kersa loolu itam ñoom ñëpp ci am responsabilité waaye loolu seen wàll la ñu ñoom nañ xool nañ xoolaat loolu nañ koy sàmmee ak yu baree bari yu demee noonu waxoon naa ko fi daaw salle sport yi yi may dégg man mosuma ci dugg waaye nag la sëñ bi daa daa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 war a am positif war a sa positif war a xam ki ngay fekk si lu mu doon foo koo xam ne ñoo ko njëkkee xam ku ma sa dugg ci dëkk bi da nga summi say dàll waaye nga dugg ci jumaa ji amoo benn xemmem teef lu may fatoo génn ci biti loolu du positif du dara ndax sa bopp képp la nit nag bu lu mu yaakaar yaakaar caa jëriñu ëllëg waru ko foyee nit du du yaakaar du foyee yaakaaram la Cheikh Mamadou Farid daa wax wattandiku leen miinal ndax nit lu mu miinee lu mu miin yëpp ko yëpp lu yëpp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 la ca nag moom léeg-léeg nit ñi dañ may wax xam nga nit ñi moom li ñu bëgg a dégg rek la ñu dégg waaye nag li am solo mooy lay dëgg nga di ko wax teyam ca sëñ Abdou Lahad dafa waxoon ne ñi de liñ bëgg dama ko mënut ndax ñi fi ñëw ñëpp soxlay adduna képp la ñuy wax kenn ñëw fi di ma wax soxla ëllëg te soxlay adduna yi muy wax kat Abdou Diouf mbi ci man daal te bu ma ko gërëmee ñëpp mer daanaka mooy li ñu dal ñun ñi rek moo tax loolu moom jërta xool da ngay seet la war a am rek nga def ko nga def ko def boo boo bu fekkee war nga leen waxu dëgg nga wax leen ko boo leen waree sant sant leen boo leen waree ñaax ñaax leen waaye nit ñi moom lañ bëggee ndax bi fi Abdoulaye Wade nekkee ci mujj gi boo taggee boo tuddee Abdoulaye Wade ñëpp mer ba Abdoulaye demee ñi ñi ñëpp ne moo di taalibe moom mi fi nekk itam boo ko tuddee nit ñi ne waroo ko gërëm moo tax loolu kenn du leen ci seet la war am nga di ko def te xam ne defuñ ci dara ci bakkan wala ñu def ci dara ngir suñ jëm suñ jëmm lépp lépp luñ ciy def rek dëkk bi ak suñ Tuubaa tax ñu di ko def.